rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala man la rasula wala nabiya ba'dahu sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabatihi alkiramil barara tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah ah, mbokki julit yu tedd nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew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 ñu ngi koo dott ci kaw doomu aadama yi xéewal ya bëri bëri gu day nii lu doomu aadama ma fasaaxa fasaa ak lu mu mën a takk ak lu mu mën a bind su ko doon jéem a lim wala mu koy jéem a bind wala mu koy jéem a takk tamit du sotti ngir ak bëri waay ga xéewal yooyu limaloon naa la ca benn démb te mooy joxoñ gi yàlla joxoñ doomu aadama rek wane ne li ma bind de bëri na waaye li ma bind lépp doomu aadama moo ma ci dàqal doomu aadama moo ma ci gënal doomu aadama tamit moom laa ci tànn loola doomu aadama ji mënut koo fay yàlla waaye mën na koo jéem a fay yàlla bu ko doon jéem a fay daal day fexe ba yàlla moomu tànn ko gënal ko ci mboolem lu mu bind moom tamit mu jëy yàlla moo ma teg ko ca kaw li mu bind ne ko comme li nga bind yépp yaa ma ci gënal man nga ci tànn ma gënal la ci diggante mala yeeg malaaka yeeg njanaaw yi man tamit yow mii di bind tànn naa la nga gënal ma ci mboolem li nga bind yaa ma gënal sama alal ji donte yaa ndax yaa ma ko dénk yaa ma gënal sama njaboot gi ndax yaa ma ko dénk yaa ma gënal sama jëmmi bopp ji ndax li ne ci man yëpp yaa ko ci def kon nag kartan gii nga dénk ma xel mii nga jox ma danaa ko delloo ci yow sante la ko donte dayob sant ba sax mënuma ko ci danaa jël sama xel mii lépp luy aw hiw ma jéem koo mokkal dooree ci sa téere bii di alquran teg ci maanaam hadisu nabawiya yi ak qudsiya yi di hadis yi nga xam ne sa yonantu bee ko wax ak hadis yi nga xam ne yaa ko ñu ko waxee te duhut alquran danaa góorgóorlu tamit sama kalmi yi nga def ko namm ko fexe fexe caa takk ay xasaayit yu bari suñu suñ maami leer yi dotti ci sa diine ji lii ñu dotti ko ci fa yonantu bi lii ñu dotti ko ci luy defar mbokk lii ñu defar ko lii ñu dotti ko ci lan mooy defar société bi ñu bokk loola daal danaa ko ci def jéem koo takk mokkal ko su ko defee santee la ko sama jëmm ji nga jox ma ci kartan danaa ko jël delloo la ko di pratiquer tamit li fa diina ji santaane ba tax na daal asalaatu xayru min an mi man ñoo la ñuy yee ba ne leen nelaw maanaam julli ñëw xuy si julli gi moo gën nelaw du ma ca bokk ndax bala koo noddukat baa wax fekk jug naa bu laajee sangu ma def ko bu laajee jàpp ma def ko danaa xuus tamit ànd ak sama torsu bu lënd mi maanaam jëm ci fi foofa ñuy wootee noddu ya njukkalee la ko yow mi ma may ci guddi gi jël ma ci bakkan yu bari nga may ma man ma bokku ca ña nelawoon te yeewu te bëri na ñu nelawoon noonu lañ jaaree dem kon danaa la njukkale delloo la njukkal ci jullil la ñaari rakkaay fajar ya defalal la ca ñaari rakkaay suba yay faata te defee ko ca gannaaw ilimaan ya naka noonu timit danaa la njukkale gannaaw bi ma jullijee ba ñëw sax ci samay awraat ak ci jàngaal quraan ak zikkar ak istigfaar ba jant bi yëkkatiku su ko defee nag ma bokk ca ñay xëy bu ko laajee tamit ma boolee waale loola dugg ca rapide ya jëm payi wala dugg ca njaga ya wala jël sama oto bopp wala ma dox jëm ca marché wala ma jëm ca tool ya wala ma jëm ca géej ga wala ma jëm ca caawa ga wala ma jëm ci fépp foo xam ne mën nañ faa fàggu wërsëg wu lew man caa dundal njaboot te man caa dund ma njukkalee la ko du ma ci yem su ma demee ba yoor yoor bi yëkkatiku danaa la njukkalee delloo la juróom-ñetti rakkaa bi ñeenti sëlmal def ko muy julleeg fay nange am ñaari rakka sëlmal amaat ñaar sëlmal amaat ñaar sëlmal def ko ba muy ñeent su ma yàkkamtee def ñaar muy ñaari sëlmal su ma yàkkamtee ba yàkkamtee def def benn sëlmal njukkalee la ko ndax yëg naa yiw wu rëy wi sa yonantu bi wax ci jullit fay nange ni mu mënee yokk wërsëg julleeg fay nange ni mu mënee xaar nit julleeg fay nange ni mu mënee yëkkati maqaamaab jullit bi ba tax na bu ëllëgee ca aljana am na ca benn buntu boo xam ne ña daan julli fay naange dong ñoo fay jaaree ñoo mel ni tey banque bi ña am bu ñëwee du ñu ran li ñëw rek dem directement bind seen chèque ñu jox leen ko su ko defee nag ni julli fay naange mi ngi mel ni ña am carte ci banque bi ñooñu am na porte bu ñu jaaree directement su ñu ñëwee rek tabaarakallaa kuñ fa mën di fekk ngay ran ñoom bokkuñu ca dañuy ñëw bind chèque rek jox leen te loolu tamit ku ne soxla na ko duma ci yem bu tusubaar jotee ma njukkalee la kartan gi ma jox gungee ko ñeenti rakkaa indi tusubaar ga ca gannaaw mbooloo ma ndax ma bokk ci julleeg mbooloo gi nga sa yonantu bi jàngale woon na sa salaatul jamaati afdalu min salaatil fadli bi sabin wa ishrina daraja ma mën ko am su ma paree gungee waat gan gu mag googu di tusubaar ak li ca yonantu bi daj ci jëli ko ba nga jox ko ko te ba mu ñëwee moom la njëkk a julli ma gungee waat ko yeneen ñeenti rakkaa bu leen boolee muy fukki rakka ñaar ñeent ya ma njëkk a gunge ak ñeenti tusubaar ya ak yeneen ñeent yi nga xam ne moom laa ko gunge ba muy dem ndax ak gan ko am ko buy ñëw da koy tertu bu ñëwee nga teral ko buy ñibbi nga gunge ko loolu rek moo waral naafile yi ñu def njëkk tusubaar ak tusubaar ja ak gannaaw tusubaar ja tàkkusaan ji di gan gu màgg nga xam ne moom nga tuddee ci sa téere bi salaatul wusta ba ba nga waxee ne xaafisu ala salawaati yemoon ci doyoon na nga ne wax wasalaatil wusta def atful xaas alal am ki njàng usul danaa ko gàttandoo ñeenti rakka bu ñëwee tamit gan gi ma teral ko maanaam noonu tamit ca timis ja su ñëwee danaa ko tertu teral ko ñetti rakka njukkalee la ko su ñibbi ma teral ko juróom-benn rakka ci ñetti sëlmal su ma yàkkamtee ba yàkkamti def ñaar su ma yàkkamtiwul lool def ñaari sëlmal di ñeent su ma yàkkamtee ba mënuma ko ma julli sa yonent bi juróom fukki julli juróom fukki yoon ki julli gu ma man janee ko loola ma waroon a def ndax Cheikh na Tidiane dafa wax ne ñaari rakka gannaaw timis ku mu faat ba mënoo ko julli ngir xat-xat nan ko jangee juróom fukki salaatul faatixi wala salaatu boo man baax na ngir doole jam am gan gu màgg gii nag di gan ak guddi dafa ajoxoo moom teral te ganu guddi dafa war a bëri lu ñu ko war a gunge ndax lëndëm gi danaa ko teeroo ñeenti rakka bu ñëwee moom ci boppam ma teral ko ci julli ñeenti rakkaa ga ca gannaaw a ima ya waaye bu duma ko bàyyi balaa ñibbi nag danaa ko gunge fukki rakkaa su paree ma indi safoo muy fukk ak ñaar ma indi witar muy fukk ak ñett lii lépp danaa ko teralee sa gan gi su ma ko defee ba tëddaat man a yeewuwaat ci guddi gi eh, ba tey ma jugaat teralaat ko rek moo xam côté quatre heures de matin la moo xam côté cinq heures la su ma bokkee ca ña xaaj ba Aboubacar bokkoon dafa am ci nit ñi ñaari xaaj lañ ñoo xam ne dañuy guddee tëdd yéex a yeewu am ci ñoo xam ne nag ñoom dañuy dañuy teel a tëdd teel a yeewu nga teeli xaaj ba nag bëgguma koo tudd mooy ñoo xam ne dañuy teel a tëdd lool yéex a ci nag ñeneen ña gën a sàggan guddee tëdd topp àll bi di wër wàcce ay tubéy fu ne nga dem nekk caa nekk ba fajar di xar ngay door di si te si kër kilifa nga ko def te ci ay mooy yàlla ak caaxaan ci nga nekkoon tëdd tëdd ba jant bi fenk mi di passé ngay laaj maire bi wala góor gi ci passion bi pour mën a ndékki loolu ku koy def ci dangay wumu ku koy def ku ñuy dimbale ngay doon ndax heure yi ñii séddale wërsëg yi di fajar gi suba teel gi wala fekkee ngay nelaw julli woo ñaar rakkaay suba julli woo ñaar rakkaay fajar ku la mën a ñaanal ba nga mën a ubbeeku amul ci tëju rek ak umu ak wërsëg wu jettu ci ngay nekk ndax yàlla am na fu la ju day ni balaa jox ñooy tëdd jox ña toog balaa jox ña toog tamit jox ña taxaw booba na ñam fekkoon ñu taxaw gannaaw bi ñu jul ba taxawalee ñaar rakkaay fajar taxawal ñaar rakkaay suba takk seen dàll na ñu ngay dem di ñooña nag la yàllay jox ke ña ña toog door a jox nag su ko defee nag waxuma nag ña tëdd far kon maanaam lii lépp yaa ngi ko def di ko njukkalee nit ñi wax naa la ñaari kaaj ya ñoo ñi xam solo moo tax ma ne ñoom laay tudd xaaj bu njëkk bi ci la Aboubacar bokkoon mooy yéex a tëdd yéex a yeewu mosaan a julli gee lim bëgg a naafile lépp lay naafile ci guddi gi doora tëdd bu yeewu rek fekk ñu ngi ne asalaatu ne naw mi mu jàpp rek dem ci jàkka ji julli Omar ibnu Xataab nag moom day teel a tëdd buy julli gee rek tëdd na léegi nag mën a teel a yeewu ay quatre heures yooyu mu yeewu commencé def naafilaam door a def safaak witaram nekk ca bañ na asalaatu xayrum na noonu mu dem ca jàkka ja ñoom ñaar ñi def délégation ànd ñëw ci yonantu bi di ko laaj ku ci gën li muy def kenn du yonantu bi moo mën a fekk ñaar ñu jotee mu àtte leen ñoom ñaar ñëpp am dëgg joxante loxo jox ko loxo moom mi leen àtte yonantu bi ne Aboubacar li nga def moo gën a dal xel waaye Omar li nga def moo gën kenn du yonantu bi xoolal ma bii àtte bu jub Aboubacar li mu def a gën a dal xel. ndax mën ngaa sonn guddee tëdd naafila huloo safaa huloo witar jaaree ca biddanti yow nag su fekkee la ngay def yépp ci guddi gi teel nga koo def door tëdd boo xeewu haatee fay la alhamdu xiw a gën a yokk boo xeewu haatu la nga waroon a def nga ko mu ne ko Aboubacar li nga def a gën a dal xel Omar nag li nga def a gën ndax heure boobu ñu bari ñiy nelaw tabaarakallaahu nga yeewu wan sa gannaaw sa mbàjji wan ko sa lal wan ko sa soxna bu laajee sangu nga def ko bu ko laajul nga jàpp di wax allahu akbar asalaamualeykum yiw way wàcc ci yow ci ngëneel kenn xamut ni mu toll ndax tedd nga ku la ko mooy ki la gën a mën a dundal guddi gi ba alquran tatajafa junubuhum anil madajii yad'una rabbahum xawfan wa tamaan mimmaa razaqnaahum yunfiquuna ba ca laaya ja yooyu yëpp day tekki maanaam naafila guddi doole jim am doole ak ni ko saxaaba yi fonkee woon waaye ñaari xaaj yi nag boo ci bokk yow baax na boo bokkee ci xaaju Aboubacar bi jugee ko ca gexe ga loo bëgg a la nga la ko lu mu guddi guddi nga door a tëdd su ko defee boo yeewuwaatee baax na boo waatu la nga waroon a def def nga ko baax na soo bokkee ca xaaju Omar ibnul Xattaab ba guddee tëdd lool teel a tëdd kon lool booy bàyyi ko ca gexe ga rek tëdd nga ndax ku bëgg a teel a yeewu da ngay teel a tëdd. su ko defee nag léegi boo yeewoo ay quatre heures li ngay naafila nga naafila ko bu laagee jàng alquran julli ci yonantu bi nga boole lu ne lu ne laal ca ndax gis nga yambu li tax mu andil ñu lem mu gën a neex dafa laal ci xob wu ne kon tamit guddi gi bu laalal ci lu ne laalal ci jàng alquran saar ya nga man bu ko xeeb laalal ci naafila allahu aleykum bu ko xeeb laalal ci istighfar jéggalu yàlla bu ko xeeb laalal ci bàkk yàlla ci laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi loo ca man bu ko xeeb laalal ci julli ci yonantu bi ni mu amee garante ak fooraay ga dañ ci yegg si bu ko xeeb lu ne rek laal ca lu ne boo ca laalee bu yàggee nga am lem waaye laal ci benn rek nag dëgg-dëgg fu nekk dañ cay laal bu ñu leen boolee mu nekk lem lem nag li tax mu gën a neex yamb dafa sob lu ne mu laal ca dana jël ca xob wale moo xam siddéem la laal ca xob bale moo xam màngo la laal ca bële bu leen boolee ñoom ñëpp rek lem ñëw euh, su ko defee kon nag maanaam lii lépp nga def ko ne ko yow yàlla maa la ko njukkalee ngir wér gi ma jox ndax yëg naa ne am na ñoo xam ne yaa leen sadd feebar ba fa ñu tëdd seen lal yi mënuñ caa wàcc toxuma kañ la cay bokk kon kartan gi ma joxande ko néew naa ci naa la ko delloo ci sante la ko moo tax bokk ci i'malu ala daawuda shukran yéen waa kër Daawuda yi moyen bi leen yàlla jox ak liñ def yëpp def leen ko ngeen liggéey ko liggéeyal ki seen bopp liggéeyal ki seen askan santee ko yàlla waaye toog rek di bàkkoo li la yàlla defal te yow defaloo ci kenn bu la yàlla baaxalee da ngay jéem a baaxee bu la yàlla baaxee da ngay jéem a baaxalaate moo waral alquran saar wi di wal asri imaamu saafiyu di wax ne bu benn saar wàccu toon ci alquran lu wal asri rek doy na moom kenn doy na sëkk saar la woo xam ne yàlla fa tudd na ñeent ñoo fi perte nañ ba mu mujj na ñëpp perte nañ set na ñeent rek ñoo ci mucc ba mu ne wal asri gëñ naa ci tàkkusaan walla asri gëñ naa ci jamono walla asri gëñ naa ci dundab sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam firi moom moo ci gën a masale ndax boo ko waxee dund yonantu bi hëmb na tàkkusaan yi boo ko waxee dundam yonent bi ëpp na ëmb na jamono yi ndax mooy ki doon jamono yëpp di puukaree ki dundam ba ba bu sëyru ne ko tatabaha bi kal usuru wa tasmu bi kal aliyaau baadaha aliyaau moo tax boo ne gëñ naa ki dundam yonent bi rek di juróom benn fukki at ñett yim dund menn at benn weer benn bis benn benn waxtu benn minute benn seconde pertu ca loolu la ku ca gëñ gëñ nga ci lu jar gëñ lu may gëñ mooy nit ñi perte nañ ñépp fëgg seen dënd ci jàkk mu ne ba mooy ñeent lu set ni illa lazina ñi gëm yàlla génn mu tekki ne wa amilu saalihat gëm yàlla ak jëf ju baax ñoom ay seex lañu soo gëmee rek foog nga jëf waaye gëm naa yàlla doo def lu baax gëmoo yàlla lay tekki moo tax foo jàng ci alquran illa lazina amanu wa amilu saalihat rek moo ca tegu buñ tudd duñ teqali ko mu mu teg ca ne kon nag ñu jëf-jëf ju baax Aboubacar yëkkati loxoom ne man ñu gëm kenn gënu maa gëm loolu dina amoon Aboubacar yëkkati loxo wa amilu saalihaati Omar ibnu Xataab yëkkati loxo wa tawaasaw bil xaq ñiy dénkante ci dëgg gëm ko di ko dund Ousmane yëkkati loxo wa tawaasaw bi sabri Ali ibnu Abi Taalib yëkkati loxo mooy ñi dénkante ci muñ waaye boo seetee ñeenti ñii di ki gëm kiy jëf lu baax kii dénkante ci dëgg. kii dénkante ci muñ ñeent ñëpp ñaar rek lañ mooy dafa bëgg a wax ne ñëpp perte nañ ba mooy ñi baax ñi ñëpp perte nañ ba mooy ñiy baaxalaate ñi ndax saa yoo gëmee yàlla day jëf-jëf ju baax yem ci ku baax nga saalixu nga su fekkee ne nag da gëm yàlla di jëf-jëf ju baax jàllal bi ko ne lii damaa bëgg mu roogaat ci xeet wi ñëpp roy ma ci ni ko daan mag ñu baax ñi defee su boobaa yow muslixu nga mooy passé nga maqaamaab baax mais da ngaa bokk ca ñay baax bay baaxalaate kon yàlla bu la baaxee da war a baaxaate waaye yàlla baaxee la ci wërsëg nga toog naan sama yaay ko liggéey sama sëriñ ma ko ñaanal maa ko def sama effort su boobaa dellu nga ci dellu nga ci ka gën a yées di qaaruna innama utitu ala ilmin indi innama utitu ala ilmin indi lii daal dama ko sama xam-xam ma ko may loolu mooy sama diplôme moo ma ko may am na ci ñoo xam ne diplôme ya am li ñu am ci wërsëg ñu fan seen diplôme la ko may ku leen dàq jàng am na ko te amul diplôme ba am ko am diplôme ba te amul li ñu am ñenn jël loola sama sëriñ ma ko ñaanal ngër ma neem laa am ñenn ñi taxaw dagaase fële sama liggéeyab baay la ñenn ñi ne sama liggéeyab yaay la nangam ak nangam yooyu yëpp delloo delloo yàlla ak weddi dong ci xéewal gu réy gim la jox la te sant yàlla dangay yëg ne moom kenn kese moo la ko mën a jox bu la ko xëyeen du sotti waaye tamit doo ca yem nag nga fexe ba firndeelee ko ci def ci lam bëgg kon yëpp mooy bala yàlla tànnee na yaa ma gënal ci li ma bind boo melokaanoo melokaan yi tamit wan nga yàlla ne ko tamit mboolem yow mi bind ak li nga bind tamit man tànn naa la ci ndax ku la ku la séddoo ñàkku dara waaye lu waay mën ku waay mën di séddoo bàyyi la fi tamit amul dara kon yow dong kese laay dimbali ko yow dong kese laay ñaan yow dong kese laay toroxlul su ko defee nag bunt yooya nga jaar caag ubbeeku waay ga ah, boo ca nekkee mooy teel na delloo nga yàlla njukkal ci ci ci wéetal ga delloo nga ko njukkal ci bañ koo bokkaale kenn gannaaw bi nga yëgee ne bokkul laa kenn delloo nga ko njukkal ci nangoo def santaaneem ya ca julli nga wàccee loola tamit ci asaka lu muy tekki solidarité rek yàlla jox na la lu ëpp sa soxla nga man koo denc ren ba déwén am ñoo xam ne amuñ luñ mën a fajee soxlaay benn dépense bu ñu añee duñu reer ñii bu ñu reeree duñu ndékki ñii bu ñu amee problème mu facture courant bu ñu warul du sotti ñooñu yàlla ne la bu la yàlla waxutoon sax dimbale leen en cadre en tant que ak nité rek nga mën leen a mën a dimbale mu ne la kon nag gannaaw bi nga jullee taxawal asaka mu yuqiimuna salaata mu yutuuna zakaata naka noonu tamit ba tey ci wàllu koor gi xiif gi mar gi jëriñu dara yàlla waaye dafa ñoo bëgg a yëgal ñu yëg ne xiif métti na mar métti na ba boo ëllëgee bu ab jullit wala nit taxawee sa kanam ne la kër ga dara nekkut fa njaboot gi amul luñ lekk dañ ma coupé ndox dañ ma coupé courant nga ne xiif lu metti la mosoon naa ko ca koor ga kon du ma seetaan sama moromam nit di ko def làmb kos-kosi na ko jàppal li yóbbu ca kër ga lii rek a tax yàlla di ñu warloo xëdëf ba lii rek la waaye kon boo fi wooree weeri fan yi ba mu jeex wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi nit ki ñëw sàkku ndimbal sàkku ceeb ba dara néewu fa dañ ma coupé courant dañ ma coupé ndox nangam ak nangam wax nga am loo ko mën a dimbalee tànk xam loo ko sa koor ga yàqu na da ngaa bokkoon ca ña woor ña weeru koor ga waaye nag bokkoowoon ca ña woor ndax jeexital gi koor di jëriñ jëriñu ko demeet aj màkka gee li ci ajul lépp boo doon seet di tënk hëdëf ba pour xamante gi yaatu rek bul xemalee xam xameel gi ci say mbokk na nga tinki say bët bi nga téye say mbokk tinkeekul na nga gën a yaatu seet ñi dul say mbokk te nekk say mbokk ndax yéen a bokk benn yàlla ji nga hubbeeku gën a xamante ñoom li nga leen tenee nga dimbalee leen ko liñ la tenee ñu dimbalee la ko ñoom ñëpp nag war a daje ci benn foire di wër genn kaaba di jaamu benn borom di bokkandoor nu ñu def bokkandoor nu ñu mel raflewu gaa ñi teraxlaayu ñi làmbaayu ñi gàddu ay xeer ñi yore seeni hadiyu loolu lépp dara ca ñorut yàlla la ko ca ñor rek moo ñi jàngee ca ak dimbalante goo xam ne gannaaw bu ko tàmbalee ci suñuy mbokk dafa law ba jëm ki ñu dul suñuy mbokk te nekk di suñuy mbokk loolu lépp ñu mën ko caa jàngee mu yaatu su boobaa ñun ñooy ñi haji woon taxaj waaye nag su fekkee da ngaa aaj yeneen yi ci xaju nit ki ñëw sa ndimbal sa mbokk rek ku leen wax soxla nga ne ko yaay kan foo bàyyeekoo foo dëkk nangam ak nangam boo ko gëstoo bokk leen doo ko yëkkati ndimbal la da nga aju woon waaye ajoo danga nga wis teew ji woon màkka rek mel ni maanaam ñu ci bëri léegi comme ni mi mel ni soppi ko mel ni tourisme di wër a ka foto woo ko fu ne nga ñëw wane jël loola wekk ko ci sa néeg wane demoon nga màkk waaye nag dem màkka aj màkka duñ benn waaye nag sàkku ndimbal la ba mel ni naaje lu jar a toppandoor la boo ko jëmbatee fi ko jëmbatee lay commencé sax bu demee ba dëgër commencé law law ga du am feet du nekk benn côté côté bu neen dana sànni benn car ndeyjoor bi ca càmmooy bii penku bi sow wane ne danaa gannaaw ba li ma li ma am muy lu baax ba ma ko téye muy samay mbokk danaa tàlleeku nag ci ñeenti côté yépp fépp fu ma mën a roo sama loxo sama ndimbal man faa yegg danaa ko def moo tax gis nga naaj gi bi nga ko jëmbatee rek fexe na ba dëgërloo boppam ba dëgër mooy li ma am lépp téye na ko lay tekki ñi ma xam téye na ko li ma am téye na ko door a sànnee ko nag car ci ñeenti côté yëpp wane ne mi ngi wuti mbaax di ko booleeg mbaax gi mu am kon li gën a baax ci nit ñi mooy ku a jikkooy naaj yi tàllee ko yore jikkooy xaal moo tax fu muy mujj doom yu bëri rek tasaaroo fu nekk nga jël mën a jëriñoo waaye yore rek garabu maanaam melow garabu acacia fi nga ko jëmbatee rek la mën a ne tàllee koo jëm fenn mënu laa ñu meññent moo mën a lekk ker ga tamit taxul mu neex melut noona su boobaa loola maanaam bokkul ci lu yàlla gërëm su ko defee kon nag nit a ngoog ak tànn gi ko yàlla tànn moom tamit mu gën a góorlu ba tànn yàlla ci boppam tànn yàlla ci njabootam tànn yàlla ci alalam tànn yàlla ci ay diplôme am tànn yàlla ci ay ndomba tànkam waaye ñu ci bëri bu leen yàlla joxee ndomba tànk te mérité wuñ ko lam leen di jural mooy fuu yi lam leen di jural mooy bew lam leen di jural mooy xeeb seeni mbokk lam leen di jural mooy gis seen bopp ca kaw gis ku dul ñoom ca suuf moo tax lu ci bëri bañ koy sàkku danañ nga wàccee seen bopp suufee ànd ak nit ñi di duggandoor ak ñoom ci seen néegu ñax ya di dugg di bokkandoor ak ñoom seen lekk ya di leen fekk ci seen ruq ya ak seen ruq-ruqaat ya waaye lu ca bari la ñu doon sàkku buñ ko xasee am fàtte nañ foofa ba bañ leen di soxlaatee waaye ñoo ngi tamit ñoom ñekk ñu ñu soxla soo ñëwee ñu coow wax la nga nga nga ñëw ànd ak ñoom kenn gënu laa ñàkk fulla nit ki warul kenn gënal ko bopp bu la kenn gënal sa bopp ndax amoo ku la kenn rek moo la war a jaral gënal sa bopp ba ñaar mooy mooy mooy yàlla mi la bind ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne tabaarakallaa mboolem lu yàlla bind moo ci gën su ko defee kon nag lii lépp mi ngi tekki doomu aadama ni ko yàlla teralee ci wala xadd karam naa bani aadama wala xadd karam naa bani wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa fadalnaahum ala kathiri mimman xalaqnaa tafdila te nga ne ngëneel jii dafa ngëneel gi yàlla gënal doomu aadama gënal na doomu aadama ci xel li yàlla bind nit a ci ëpp xel moo ci am xel sax malaaka yeeg mala yeeg njanaaw yeeg yent yent yi xel newu fa waaye nit ko am kel xel ci nit moo tax xel moomu yàlla jox la waroo koo fooyee lépp luñ la wax ne boo ko defee sa xel mi yokk rek nang ci xiir luñ la wax soo ko defee sa xel mi wàññeeku rek ba dalay yàqal da lay yàq yàqal la ndax nit jëmmam ja la muy rëy rëy bu fa xel néexatul moom mala yee xem bu fa xel muñ jëriñoo xam néexatul tamit moom mala yee xem dafay jarañ maanaam nga ci man di xelaat moo tax yàlla yëg na ne xam na ñoo am xel waaye duñ ca xelaat bam ne yaa ulil danay bëri maanaam fa maanaam tafakkaru tadabbaru afalaa yatadabbaruuna nangam loolu lépp mooy dañoo seetantalu ñii danañ am xel waaye xelaatuñ ca moo tax mu ñuy xeeñ ñi xelaat ñi danañ ca xelaat waaye duñ ca duñ ca seetantal yooyu yëpp moo tax muy bari ci alquran nañ yéen ñi am xel na ngeen yéen borom xel yi yéen ñi borom xalaat yi yéen ñi settantal yéen ñi nga xam ne tamit da ngeen di segg ak nangam loolu lépp bëgg ñu jariñu ci xel moom tamit la yàlla jagleel mu am xam-xam buñ mën a jariñoo mu wisaaroo nit a ko am moom la yàlla jagleel gënal ko ci jox ko xam-xamu xikmatu lu jariñ jox ko fasahatul mantiq mën a wax nga ne mane ci làng wu mën a doon nit a ko jagoo lu ki des dañuy bëmm wala ñuy junji yàlla rafetal bindam ba xamale taxawaay ba loolu nit a ko jagoo bopp ba nekk ca kaw ak nopp ya waaye tey bu sa bopp bi nekkoon ci sa suuf boo bëggee gis ta nga sonn sa bopp bi nekkoon ci sa tànk yi musibaam waaye yàlla jekkal sa bind bi ba tax na mu jël ko jël bopp ba nekk ca kaw ak nopp ya ak bët ya loo bëgg gis rek mën koo xool su ko defee nag xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fii ay surati macha rakkabaka fag yow ci wala qad karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri walbaxr wa rasaqnaahum min altayibat wa fadalnaahum ala kathirin min man xalaqnaa tafdilan waaye loolu nga topp ma incha allah ci waxtaan wi di ñëw ma sof ak yow li ma sos ak yow